bu problème amee ñu jël seen ay journaliste jël seen ay chroniqueur jël seen ay tiktokers yenn saa sax nga gis léegi caméraman yi sax léegi dañu sot nee na ñooy yaay dañ leen di tontul ñoom pourquoi parce que tout simplement ñoom ñoo nekk ci nguur gi am seeni journaliste fenkat am seeni tiktokeur fenkat am seeni Euh, garabu garabu fenkat am seeni li ñuy wax influenceur fenkat bu buggaan waxee comme waa ji dafa tële moom du tontu de da gis gaa yoo xam ne ñoom ñooy taxaw naan non ñun mën nañoo fenfen fen bi bàyyi leen ñu ñu fen-fen bi nee na ñu ñooñu ñooy tontu buggaan man buggaan géy lépp lu ma wax jëm ci ñoom kenn du ko tekki

oui c'est mon sac pour la prison ah non ni fi ni ñii ñoo musiba Macky parce que li Macky donne cette cous kus vous ci dara ñi dañu rusul dara xam nga nit bo amul xam nga Macky sax bo ba gis ne Macky def na lu mu warul def nga ne xaaral ma dem Madani wala xaaral ma dem Louga ci wax ak mom mais ñi koy waxal de sëriñ. wéeruñu fenn kan ngay waxal. moom xanaa ñu doon opposé sax amoon programme di ko défendre sax fi mu ne amuñu lu ñu wax ba nee nañ ci seen i voilà moom moom am fitu taxaw ne ñaw ne day wax moo tax waxu dara moom moo waxu tus. importance bi mu jox boppam sax ci wax ji da koo amut. maanaam dafay dafay mujj day reetaan loo nit ñi. gis nga politique wërtatee nit ki nekk nit nit da ngay respecté sa bopp respecté corps bi nga nekk. quand le président Ousmane Sonko chaque fois ci biir wax bi il me dit Bougane boo jëlee réew bugan bu jëlee Sénégal. wala kano. ça veut dire dafa gore. Ousmane Sonko amul experience ci dara dag juuti dong lu musa def ci aduna non mais c'est la réalité mais dites-moi en vérité Ousmane Sonko bu weso mbindaanam ak gardien bu ci buntu keureum ku musa mus a dama gis ay intellectuel ci senegal dañuy fen di fen ba gem sen ay fen ñame yalla c'est-à-dire am na dama gis ay intellectuel ci Sénégal dañuy fen di fen ba gëm seen ay fen ñame yàlla kan bugaan ma def ko président de la république Sénégal xalaatuma ko laa ilaaha illallaah xayaat ah waay waay li nëbboo bari li nëbbu te feeñut ak bari

et puis muy loolu c'est juste pour vous dire c'est juste pour vous faire comprendre ban niveau la nekk moom mi nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko. Bougane dafa boole ñaar dafa ñàkk yara diko. ko. déedéet oui dafa du ma dem ci fen quoi parce que au moins dafa ñàkk kersa ba yara diko. te boo ñàkk kersa tout est possible. lu tax nga wax. non non non Bougane dafa ñàkk kersa yara diko. ok d'accord. Euh, dem na ba mun a Sonko moom dictature la quoi bëggul ku ta mu ngi tàmbalee nekk dictature ci këram goo nga xam ne ku àndul ak moom da ngay toog ci émission mu lay message pour mu lay wax loo war a wax. moom Bougane waaw. waa di dinañ ñëw ci dinañ ci. est-ce que yaa ngi dégg ku dégguwul ak moom tey ci teleem wala jaaroo ci ligne am doo fa nekk loolu loolu boo yoree réew nooy def nit ñi kon. ko xam nga lan mooy suma objectif mooy su ma nekkee président de la république bu Sénégal.

ci réseaux sociaux yi rek la ñuy toll di ko wax mais li wóor mooy yow xam nga ma ku ci jàkkaarlook man wax ma loolu ma doxaan sa ndey yow xam nga loolu. yé Ilimane na nag. Bougane journaliste nga comme man ma laaj la question bi ci lu gën yomb suñu jàllee le ñu ne Bassirou Diomaye Faye candidat la ñu ne kii mooy candidat waa Pastef est-ce que c'est possible. une alliance entre yow ak. le camp de Il n'y a même pas à choisir de ah. voir de midi à 14h. Aujourd'hui, mhm. celui qui incarne l'antisystème mm dans le landerno politique, vous parlez Ousmane Sonko nga Ousmane Sonko un candidat pour l'antisystème. système mhm. mais a même pas à réfléchir. C'est ça <laughs> ziaré na len gay ci lu ngeen ne ba yéen ngi si jàmm bu baakha baakha baax gay njital gars sa bop nak waxna ba paré waaye waxu fi dara dara dara dara dara la fi njital weddi sa bopp waxul bugaan ngay dane boy wër ko ñak xam-xam ak ku amul xam-xam jàppal bugan jëru ngay sori bugaan ngay dane du wax mukk boo waxe xam-xam heure buy wax day xaste heure buy wax day wax lo xam ne xamu ci dara dara da ngay xam ne limi wax xamu ci dara Bougane Gueye Dany ci bopam mo amul xam-xam ba pare bëgg ne dañuy imposer bopam ngir ñu jox ko réew mu jité ko yow ko xamne ne mosoo ci élection yow nan nga mëna nek opposant bo xamne dinañ la bayyi xel yow fi li nga war gor góorgóorlu mooy nga jéem a dem ci élection député yi nga jema am ab député sax lu bon bon assemblée nationale mais yow dara wul di wax rek ab sa ko ngoo ñaata lay jar lo rek nga bëgg a loolu rek nga fi bëgg a nekk yow maam yow jéemoo def dara ci jéemoo def dara yow daal na suñ ko wax nga génn tontu wala bu ñu waxut nga wax jéem leen ak kalaas xosi leen bëgg ñu wax ak te yow sëñ bi Sonko nawlewu la loolu xaw ma kañ nga koy xam ne Sonko nawlewu la kañ nga koy xam yow nekkoo koo xam ne nii dangaa war a wax Sonko di la tontu ndax yow ci sa bopp yaa ko jël yow ci sa bopp juróo di wax Sonko génn ne dalay tontu. loolu moom boobu bis bu ko Sonko defee nga wax Sonko génn uniquement pour tontu la ñun mooy bàyyi nañ Sonko mooy banañ ko ndax yow génn di tontu yow bis bu ko Sonko defee ñun Sonko sax du def yow Bougane Gueye yow ci sa jëmmi bopp yaa war a jéem wuti xam-xam gis nga ni nga maîtriser dëkk yi ngay wax nii dëkk yi nga naan jaar nga fa ak dem nga fa ni nga ko maîtriser boobu bu doon noonu nga amee xam-xam kon ku la joxum réew nga doxal mais yow amoo xam-xam. li nga waroon a li nga waroon a am ci xam-xam yëpp da nga ko yemale ci dëkk yooyu compte dëkk yi daal man nga ko jaar naa fii jaar naa fii jaar naa fii loolu bu la ci rawee bugaan mënatoo dara sa entreprise bi nag bu fekkee ne moom moom ngay jiite ba tax nga ne da ngay xas Ousmane Sonko ci musul jiite dara wala ju nga dégg naa sax nga naan juuti la ma sa fay wala yooyu kàcc siñ bi ci kilifa bu toll ni yow bugaan ngay dañ yow ci sa bopp yaa war sa bopp nit te xam ne kii ngay defante wut ak yow bukan Gueye Dany do ñittal l'opposition yow ya do ko do do lo yow ya muso dem ci ay élection kenn wul yow ya bu ndon wër chef de l'opposition sax Anta babakar Ngom lañ koy def mais du doon yow bu ndon ko wër bu ne ba ñak ko Anta lañ koy def mais nah, yow mosoo bok ci ay élection yow parrainage rek mosoo ko jall ndax yalla sax comme dindi nañ parrainage bi nga mëna jall té nak bu boba ngay xamné yow tekki wo dara ci réew mi ndax nga mëna tek ci gimiñ gi xam nga xam nga élection yi mu lay parrainage ak yooyu noonu amu ko amu ko léegi di nga dem nga natt sa bopp nga xam ne yow tekkiwoo dara ci réew mi sa wax bu bari ji tekkiwoo ci dara nit ñi bàyyiwul na sax xel loolu moom boo nga xam ko te ci élection yi nii nga koy xam comme amuñ parrainage moom di nga bokk di nga bokk ci di nga bokk bis boo bokkee ne nga natt sa bopp peese sa bopp nga xam ne yow anta sax moo la gën a tekki dara ci dëkk bi ndax moom sax bokkoon élection waxuma ay Pape Djibril Fall ñu xam góor ne dama laa bëgg ne yow Anta Babacar moom comme jigéen la moom moo la gën a tekk dara ci réew donte jigéen la laa la wax nga xam ne ñu takkoon seen digg yëpp am fulaak fayda bokk nañ ci élection yi góor ñi sa moroomi góor yi yow nag dangaa tekkiwul dara dara dara dara ba nga xam ne ni ay élection sax mënoo see bokk ay élection rek mënoo see bokk ay parrainage mënoo koo matal kenn parrainé wu boo jugee di wax ah, di song Ousmane Sonko mi nga xam ne nii ab joxañ rek la joxañ nit ñi topp yow nag mënoo joxañ nit ñi topp la sa xol bi kan nga koy tijji nga def ci Ousmane Sonko président Diomaye premier ministre bii kañ ngay tijji sa xol bi nga def leen ci yow bu la laajee Sonkoog Diomaye Sonkoog Diomaye lu nga def doo wax lenn lu dul dañ maa jiite dañ maa jiite doo ngay wax bu nee la Sonko lu la def wala Diomaye doo wax lenn lu dul dañ maa jiite loolu moo tax sa xol bi mënul sedd ci ñoom lillaahi wa rasuuli sa xol bi dañ koo sukkar wala nga glace ko glacé sa xol bi tuuti wala nga mën a dund tuuti tranquille sax heure boo xëyee ci sonko ngay xëy ci la ngay te amoo benn xam-xam da ngay sonko sonko lu te yow sonko bi muy nekk ci opposition bi mu doon yow sonko lu daan wax wax joo xam ne nit du ko tegg kuy takk tubéy du ko teggi du ne ko lii amul te yow nag boo waxee fii di sa bopp fee boo waxee fii di sa bopp fee ba pare amooy nit bari nga wax teg ci te xamoo looy wax bugaan bi nga naan fi saako ngooñ ñaata lay ñu bu ñu yem bi ngay wax fii naan saakum ngo ñaar lay jar fi lañu ñu bu gan fi ngay wax naan loolu booy Pastef yow koy wax ko koo xam nangam sa ndey fi lañu ñu bu gan ngay dañi kañ nga ñuy jox cër kañ la kañ nga ñuy jox cër gan ngay dañi la kañ nga ñuy jox cër la kañ rek nga ñu nara a jox cër ko ak juma mi nga duggal sa xol bi baye boobu nga dindi leen ci moom ci bi te nga jima nga glacé sa xol bi jëlaat Sonko ko juma duggal ci ndax yow bëri nga waxi dof wari waxi dof ni nga wax bari nit moom waxaale wu ma ko doo ko jege si lii nga ne moom nga jiite waa àndandoo di seen bopp yi nii jëmul fenn la jëmul ndax seen njiit demul dikku xas sa nag moom moo si jël première li ngay xas Diomaye ak Sonko boo jë boo mënoon a jaar fi mu jaar jaar fa koo mënul mënoo wax lenn loo xam ne nii dina dina tax. nit ñi bëgg la wala mu dugg ci xol yi ba nit ñi ne kii kat duñ ko joxe yow ku la joxub quartier sax barke sëriñ ku la joxub quartier di ko tuub soo sonal nga nit ñi ci wax lu bari doo wax lu am farata doo wax lu am fayda ñeey ñeey ñeey ñeey ñeey ñeey ñeey guddeeg bëccëg ëg nga dijj sa xol bi nga def ci glace da nga dee de te booy dee xol bu tàng moo lay rey xol bu tàng képp moo la nar a rey ci suñ ko jumaa ji sukaral sa xol bii nga def ci glace élection yi ñu jëm nag na nga góor góorlu góor góorlu ba sax nga am benn boo ko deful moom mooy yow mi tekki woo dara dara dara dara dara dara dara ci dëkk bi loolu moom nga def ko si sa ndom gi nga yóbbaale ko comme yow lu jot nga jóg wax lu jot nga jóg wax mbott ma lab na nga jóg wax gerte ga jeex na nga jóg yow mu fi nii rek te booy wax doo wax xam-xam li ngay def ñëpp mën nañ toog di xaste rek ñëpp mën nañ da ngay jéem a wax xam-xam baa nga noppi bu sonal nit ñi nag bul sonal nit gitu. deng dégg nga naan bu do wax ba sonko génn tontu la sonko du la génn tontu sonko du la tontu bu la tontoo ñun ñi and ak mom ñu bago ndax sonko yow yoyo yoyoo mu di la tontu yoyo woo ko waxi dof waxi seret waxi ndax sa xandang ko ngo ñaata lay jar loolu ku koy wax sonko du la tontu da ngay jéem a da ngay jéem nga waxee xam-xam boo bëgge nit ñi tontu la loolu moy wax ni mais sa waxi dof yi kenn du la ci tontu ja ngeen jëf gaay yi yaa nañu yalla may xulu muñ ba nu mën a jàmmaarloog opposition bu bees bii nga xam ne seen xol bi daa tàng te xam naa ne ci tàng lay dëkk ndax li ñuy wax bu dugg ci xoli sénégalais man moo may jaaxal kon yaa ñu yàlla may xolu muñ ba nu mën a jàmmaarloo opposition bu bees bii fi nekk ba mën a defante ak ñoom nga xam naa ne ci yàq lañ nar a jëm ak jëbalise ak jéem a tas réew mi foofu la ñuy mujjee waaye nag nañ leen kar ba buñ fa yegg ndaxte ñii loolu rek isaay moo leen dese ndax amuñ xam buñ ko waxee te it duñ ko jëfee. jamono ji lii rek moo leen dese xaste ak wax-wax ñu ñaaw kon gars yi yal nañu yàlla may xolu muñ ba nu mën a jàmmaarloog opposition bu bees bi nga xam ne ñoom la fi yàlla teg.